excellence euh, monsieur le président de la république ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ginnaaw visite d'état ba nga doon amal fii ci république populaire de Chine boo doon def bilan lan nga ci gën a jàpp. waaw bu doon euh, amal tey benn bilan dañuy jàpp ne euh, tukki bi ñu tukki ñëw Chine am nañ ci lu kawe suñu njort ndax gannaaw bi ñu toogee bokk waxtaan. ak euh, autorités chinoises yi notamment président Xi Jinping ak yeneen kilifa yi dëkk yi nekk président assemblée populaire nationale bu Chine ay chef d'entreprise gis nañu ne que li ci mën a génne mooy luy gën a ñongal suñu diggante Chine te am nañ ay accords yu bëri yoo xamante ne signé nañu ko yu laale ci wàllu mbay mi ci wàllu industrie ci wàllu numérique ci wàllu ndox ci wàllu énergie ak lépp lu laale ci euh, koom-koom gu laal ci géej gi accord yooyu nag euh, ku ne xam na ne njëriñ rek la mën a jural ay dëkk yu mel ni suñu suñu dëkk euh, jëlee nañ fa tamit xéewal goo xam ne président Xi Jinping moo ñu ko xéewale ndax jox na Sénégal lu mat 27 milliards yoo xam ne amul lenn loo xamante ne dañ ko ciy fay te loolu day wane ne rek ne suñu diggante digganteeg Chine gën naar naa ratax euh, li ci tegu tamit mooy bi ñu ñëwee ba def yenn visites yi dem seeti pooru Qingdao nga xamante ne daanaka lépp dañ ko automatiser ba pare di ci produire courant ci anam yoo xamante ne dafay euh, euh, dafa dañ koy rafetlu ci wàllu climat dem seeta yeneen entreprise gis nañu ne que Chine def na avancé yu am solo yoo xamante ne Sénégal mën na ci jëlee lu bëri bëri tamit euh, doxalee noonu ndax lu andi koom-koom gu bëri la ci biir Chine. FOCAC di forum bi jëmmal jëflante diggante Afrique ak Chine suñu réew Sénégal ak Afrique mën ci am itam ay opportunité yu bëri ci wàllu perspective di ëllëgu coopération bi yan jéego nga ci xaarandi. Euh, FOCAC nag lu weesu Sénégal sax Afrique ci boppam euh, la amal njëriñ lu bari ci. li koy suqal euh, fu mu toll nii président Xi Jinping annoncé na ne am na cinquante milliards yoo xamante ne jagleel na ko la Afrique pour lépp loo xamante ne dafa laal ay projet de développement kon ni may gisee FOCAC ci Sénégal ak Afrique ak Chine euh, ay njëriñ yu bari la ci wàllu mbay mi ñu ngi fàttaliku ne euh, lépp loo xamante ne dafay suuxat mbay mi di ko gën a moderniser euh, Chine lancé na ci benn initiative muy opportunité yu bëri yoo xamante ne nag économie yu mel ni suñu bos nga xamante ne objectif souveraineté alimentaire ak sécurité alimentaire lu ñu amee la mën nañ ko ci jële ci jëflanteeg Chine ci jéego yu mu jot def ci mbéy yeneen initiative tamit am na ndax initiative bi nga xamante ne président Xi Jinping lancé woon na ko te mu tudd la ceinture et la route am na lu bari loo xamante ne jural na ko dëkku Afrique yi ak dëkku ak Sénégal muy ay projet wu tali ak ay autoroute ak ay por yoo xamante ne ci biir Afrique ak Sénégal euh, Chine jot na ko fi def euh, ba laale na tamit ci wàllu industrie yoo xamante ne que mu nekk industrie manufacturière wala ci wàllu wér-gu-yaram wala ci wàllu énergie renouvelable ay projet yu baree bari bari yoo xamante ne euh, dëkku Afrique yu mel ni Sénégal soppe na seen xar kanam Chine def na ko fi kon forum bi ci jamono joo xamante ne Afrique ngir lancé euh, zone de libre échange continentale maanaam lépp luy euh, suuxat koom-koom ak jëflante ci diggante réew Afrique yi euh, fokk ak opportunité bu mag la mën a doon ci luy tax ZLECAf gaaw am essor buñ ci yaakaar. excellence ci li nga xam ni mooy multilatéralisme Chine da cee am approche boppam loolu tey ban gis-gis nga ci mën a am Chine nag euh, dafa am euh, loo xamante ne daf koy doxale te mu nekk loo xamante ne réew Afrique ci loolu la ñuy loolu la ñuy xaar ñu ne ñëpp ñëpp ñu ñuy jëflante ci bitim réew mooy li ñuy woowee multilatéralisme bañ a bodd kenn dem ci jëflante joo xamante tamit dañuy respecté wante nawla wante euh, ba pare ku ci ne gis boppam ci jëflante jooju que mu nekk Chine wala mu nekk yenn dëkk yi nga xamante ne Chine ngi jëflante ak ñoom ci Afrique euh, gis nañu ne tamit ànd nañ ci yéwén ndax initiative yi nga xamante ne président si annoncé na ko muy initiative pour le développement mondiale di initiative pour sécurité mondiale ak initiative pour civilisation mondiale yooyu yëpp dafa dox euh, méngoog li nga xamante ne partenariat boobu la euh, Afrique nekk di di wër tey li ma li ma gis nag moo gën maa neex ci initiative yooyu yëpp mooy développement bi nga xamante ne dañ ko nettali ci kanam ak sécurité ak fexe ba àdduna nu muy doxee ñu bañ bàyyi kenn ci gannaaw euh, sóoraale xalaatu ku ne bañ a xool ñi ndóol ak ñi am te euh, loolu mooy li nga xamante ne ñun ñoo ko bokk war ko waxtaane te Afrique war ci am baatam ndax ñun fu mu toll nii ci Afrique lu ñuy gën di euh, laaj ci scène internationale bi mooy li ñu doon doxale ñu soppi ko te gën ñu mayante cër tamit respecté li nga xamante ne mooy suñuy culture ak suñu autonomie ak suñu spécificité Chine nag wone na ne que gouvernance mondiale nu mu doon doxee mënatul doxe noonu te nekk na koo xamante ne bokk na ci ñu am baat ci conseil de sécurité ONU par exemple mais mu ngi ne ñu mel ne Afrique ci lu ñu yor ci population mondiale dañu leen war a bàyyi xel ba pare déglu leen ñu am ay siège ci institution inter instance internationale yoo xam ne dañ ci dañ ci dañ dañuy waxtaane lépp luy doxal adduna donc euh, côté boobu euh, def nañ ci ay jéego yu bëri te Chine tamit am na ci taxawaay goo xamante ne taxawaay gu ñu rafetlu la ñun réew Afrique yi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur le président. maa ngi leen di jaajëfal bu baax yéen tamit.